te sunu boroom def jàmm ci réew mi mbas mi nga xam ni moom la fi yàlla dugal sunu boroom génne ko fi ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi barakati cheikh ramadan euh, doon nañ fekk cheikhul xadim fekk ñaanoon na ci te ballaloo ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax waxam ak ñaanam ak doxalinam yépp ci yar njaboot gi ak tàggat leen dara génn ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dara it génn ci doxalinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadayta bi aqdi wa tasawufi wal fiqhi iyaali bi zikri maa salaati wa bil mathi kon moom gindi gi mu gindi njabootam teg leen ci yoon nee na maa ngi ko teg ci yonent bi sallallahu alayhi fa mu tegoon tànkam dem na ba wax ne sax yonent bi sallallahu alayhi wa diini kitaabul Moustapha laa xayru wa yantahi ila siwaaya dayru sama diine daal mooy téere bii Moustapha sallallahu alayhi wa sallam indi ci laay teg sama tànk balaa nag ca lañ toll muy azma boo xam ne crise mondiale boo xam ne euh, indi na fitna fépp fekkoon na nag sëriñ bi moom def ay ñaan ñaan suñ borom dégg nga mu wax ni antar rahimu samadur rahmaanu almuminul muhayminul mannaanu ikfil bala wa jumlatal wabai wa suq ilal aadaai kulla daay xam nga loolu daanaka boo ko càmbaree juróom benni turi sunu borom la ñaan anta arrahimu assamadu arrahmaanu almuminu almuhayminu almannaanu ikfil bala ikfil bala wa jumlatal wabai wa suq ilal aadaai kulla daai kon balaa mën na nekk loo xam ne it day jóge ci noon léeg-léeg day jóge nag ci coobare yàlla léeg-léeg mu nekk loo xam ne pexey doomu aadama rek génnu ca dégg nga loolu nag dafay duggale ci biir ñaanam nga xam ne lépp da koy dellawaat rek ci eh, sunu boroom ak nammeelam ak coobareem waxaat na ci geneen xasida allahu xayyun samadun wa baaqi subhaanahu zu kanafin wa waaqi wa nahnu fii kanafihi lmanii min kulli charrin wa azan shanii mustamsikina bilgiyaasi ahmada xayral anaami muntahan wa mubtada man qaalaha fi zamani lwabaai amanahu llahu min albalaai xasida googu seexul xadim wax na ne képp koo xam ne wax nga ko ci jamonoy balaa sunu borom dina la musal yow ci ayu balaa boobu kon nañ koy ñaan ñu baamtuwaat ko allahu xayun samadun wa baaqi subhaanahu zu kanafin wa waaqi wa naxnu fi kanafihi almanici min kulli charrin wa adan shanici mustamsikina bilgiyaasi ahmada xayra al anaami muntahan wa mubtada man qaalaha fi zamani alwabaai amanahu llahu min albalaai kon moom bi mu waxee loolu sax da caa teg sécurité boo xam ni maanaam garantie boo xam ni moom ci juboo ak gëmu jubóog suñu borom wax na ne ku wax lii ci jamonoy balaa yàlla musal la kon ñaan dong moo ko fiy jëlee loolu nag mooy delluwaat ci suñu borom loolu mooy delluwaat ci suñu borom ndax allazina amanu ñi nga xam ne eh, ñi gëm yàlla ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla te sunu borom saa bu jëlee balaa teg ci seen kaw dañuy delluwaat ci seen borom ñooñu la alxuraan waxoon ne ñooy dëgg dëgg dëgg ñi gëm yàlla ulaayka alayhim salawaatu min rabbihim wa rahma wa ulaayka humul muhtadun léegi nag ibtilaa baatu ibtilaa bi alquran indi wala nabluwannakum bi cheyin min alxawfi wal juuci wa naqsi min al amwali wal anfus wa thamaraat wa bashiri wa bashiri sabirin allazina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñooñee la alquran bëggoon su lu mel nii amee mbas am yàlla teg ndaan àdduna bi wala mu teg ko aw xeet ngir bi kasratil maasi bari bàkkaar wala bokk bi iradatul rahman ci nameluk yàlla rek mu soob ko mu dogal lii nañ delluwaat ci yàlla ñooñu nag nga xam ne ñoo am pas-pasu gëm yàlla xam ne lu am min qadari rahmaani lu am rek dogalub yàlla ñoo ñu nag la alquran waxoon ne ulayka alayhim salawaatu min rabbihim wa rahma wa ulayka humul léegi sëriñ bi nag moom am na lu mu digle ba tey wax naa la ñaari xasida ci jamono bu balaa wàccee nañ koy ñaan dem na sax ba indi jeneen xasida goo xam ni ñaan la gu dugg ci moo xam da nga am dëkkaaleb noon wala nga am buur buy teg ay ndaan mooy comme li xew rek nga xam ne tuumal nañ ci état yu bari ci ne seen loxo ngi ci yooyu yëpp indi na ca ñaan goo xam ne suñ ko dee ñaan sunu borom mën na musal ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci xeeti mbas yi ak xeeti fitna yi ñaan gi mooy yaa rabbana najjina min alcheytaani wa jawrati aljiraani wa sultaani wa kullu naafisin ala aluquudi wa zalimin wa aabidin xasuudi wa wa kullu taarixin zi turuqin tadlili wa kullu talmisin wa zil balili daan ne fa bi duain yasrifu lbalaya wa bi rajain yujudul ataaya dégg nga mu wax ni sunu borom def nañ dafa wax yaa naa najjinaa mina shaytaani yow sunu borom yàlla nga nu musal ci pexem seytaan wa jawratil jiraani wa sultaani ak mbonu koo xam ne dañoo dëkk ak moom muy kàccoor di fexe ak buur bu am doole di duma wa kullu naafisin alal uquudi ak képp ko yor ay pas-pas di fas ngir takk doomu aadama dégg nga wa taarixin zi turuxin tadliili ak képp koo xam ne day tiitale guddi mooy taariq nga tëdd guddi mu di la tiital baa mu di la sànq di la jaaral ci yoon boo xam ne waroo coo jaar ukulatal misin wasin balili ak képp koo xam ne daa yor xam-xam ko essayé ci aw nit te gis ngeen ko wasil balili ak képp koo xam ne daa am balaa fitna yoo xam ne da koy teg ci ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi nag mu wax ni loolu nag saa bu amee fa bi duwaa in yasirful balaaya wa bi rajaa in yajudun ataaya mu ne ci ñaan la yàlla y wëlbatee balaa ci yaakaar nag yàlla la yàlla y wàccee yërmandeem kon ba tey baatu balaa duggaat na ndax balaa kenn du ko tege ko dul yàlla donte nag lépp lu dal aw nit bi maa kasabat ay diikum loolu alxuraan waxoon waaye nag am na loo xam ne ci dogalub yàlla rek mooy tax loolu mën a am léegi nag bu ñu maa ngi tegtaloo ci téere bu ñu tuddee diwaanu silkil jawahiri fii axbaari sarairi euh, ci waxi cheikhul xadim mu wax ni wa rawiya an nabi salallahu alayhi wa sallam annahu man sawada baaban min al musibati aw xaraqa thawban aw xalaqa shaaran buniya lahu bi kulli shaaratin baytun fi nnaar mu ne képp koo xam ne balaa daf laa dal balaa boobu dal ci sa kaw mooy musiba rek nee na musiba ba mu ñëw dal ci sa kaw sa wada baaban nga yàq sa bunt wala nga sànni ca dara lu koy gàkkal ngir mer aw xaraxa sawban wala nga xotti sa mbubb ngir tiit wala mer ndax bi xawfin léeg-léeg mën naa néew lu la tiital ba yóbbu sa imaan aw xalaqa shaaran wala nga mer ba dagg sa karaw di sànni noonu ya arab yi daan def nee na buniya lahu bi kulli shaaratin baytun fi nnaar karaw gu nekk ci sa bopp nga buddi ko sànni danañ la ko tabaxale kërug safara ëllëg ci mer moo mer ci musiba bu la yàlla teg fa ka annama ishtaraka fi dami sabina nabiyan mel nga ni bokk nga ci ñu rey juróom-ñaar fukki yonent te ku rey bàkkaaru benn yonent rek wala yonent rey la kenn mënu laa rëmm nee na ku def loolu nag am bu toll ni nga ci ñu rey juróom-ñaar fukki wala yaqbalu llahu lahu sirfan wala adlan wala fardan wala naflan boo meree ci balaa bu la yàlla teg nga xotti sa mbubb wala yu ni mel wala nga damm dara nee na du naafila du sarax du farata booy def bu yàlla nangu maadaama zalika sawda ala baabihi fekk la nga defoon ci sa bunt ba nga ko sànnee wala nga xotti sa mbubb fekk loola ma nga fa nee na sunu borom yaa ngi ci meram wa dayiqa allahu taala alayhi qabrahu sa bàmmeel itam sunu borom dana ko xatal ba mu xat wa shaddada alayhi xisaabahu te sa xisaab itam sunu borom dana ko metti lool wa laanahu kulla yawmin malaykatu samawati wal ard nee na ku yàlla teg musiba nga mer baa nga ñeññ malaaka yi ñu ngi lay rëbb nee na malaaka yi asamaani juróom-ñaar ñu ngi lay rëbb malaaka yi suufi juróom-ñaar ñu ngi lay rëbb wa kataba allahu alayhi alfu alfu yàlla dina la bindal junni junni bàkkaar ci loolu nga def wa qaama yowma alqiyaamati min qabrihi uryaanan te képp koo xam ne yàlla teg na la balaa nga def dara benn geste bu weddi yàlla ëllëg yowmal xiyaam boo dekkee doo sol mbubb doo sol tubay wa man xaraqa jaybahu képp ko mer ci balaa nga xotti sa jiba xaraqallaahu diinahu yàlla xotti sa diine wa man latama xaddayhi képp ku mbécc ab lexam ci mer am na ñu koy def nee na xarama allahu alayhi nadara wajhahu alkarim yàlla araamal na xool la bés ba nga xam ne yërmande daa war a am te mënta ñàkk te yàlla war a xool yërmandeem yi jaamam yi bëtub yërmande ëllëg yamal xiyaam yàlla du la xool bëtu yërmande dégg nga wa fi lxabari an annabi sal allahu alayhi wa sallam qaal lamma maata ibnuhu ibrahim damaat aynaahu fa qaala lahu abdurahman ibnu awf radiallahu anhu ya rasulallahi alasta qad nahaytana an il bukaa qaala innama nahaytukum an il nawx walgina wa an shaqi lwajhi wa shaqi ljuyub fa zalika fihlu lkufri walfajrati amma hada fa rahmatun jaalaha llah fi qulubi alxalaayiq arruhamaa mu ni bi ibrahim génne àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallama rangooñam dafa tuuru bi rangoñam tuuroo Abdurahman ibnu Awf ne ko ah yow yont bi xanaa tere woo woon ni nit sufaatoo bu ko kenn jooy mu ne ah man de la ma leen tele woon Abdurahman mooy ani nawx wal di yuuxu yuuxu mooy an nawx di xaacu ca kaw di jooy loolu laa leen tere wal ginaa wala ngeen di tëgg di fecc di way ni ko ñuy weddi yàlla di defee wut sax ñu leen di jooyli ci seen i dëj loolu laa leen tere waaye nag lii may def rahmatun jaalaha llaahu yërmande la ju yàlla def fii xulubi ruhamaa alxalaaq arruhamaa yàllaa ko def ci xoli bindeefam yi nga xam ne yàlla de leen a bindaale yërmande mu waxati ni moom yonent bi sëriñ sëriñ Tuubaa wax na ne mu ngi ballaloo ba tey ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala sallallahu alayhi wa sallam alqalbu yaxzunu wal aynu tadma wala naqulu illa ma yurdi rabb yonent bi nee na xol bi mooy metti su musiba amee wal aynu tadma bët bi daal di tuur aw rongoñ wala naqulu illa ma yurdi rabb waaye man de yonent bi du ma wax mukk lu dul lu gërëm loo yàlla ak dogal bi lu mu metti metti metti damay delluwaat rek ci sunu borom wa qaala abu xanifata rahmatullahi alayhi rahimahullahu taala annahu xaraamun nee na abu xanifa yàlla na yàlla dolli yërmani ci moom wax na ni annahu xaraamun yuuxu ci balaa comme ni ñuy def di ngawti ngawtee di wax lu dul noona di wax musiba di wax fitna léeg-léeg sax ngi gis ci koo xam ne day wedd yàlla te yëgul ni mu ngi wedd yàlla ci waxam ndax la waroon a am mooy delluwaat ci yàlla wala ñu laaj boroom xam-xam ya ña diine wax loo ñoom ñi wax ca waaye léeg-léeg gis koo xam ni mën naa sax weddi yàlla tudd ko yëg mu wax ni bu boobaa abu xanifa nee na na annahu xaraamun yuuxu xaacu weddi yàlla ci balaa dafa araam wala ba'sa bil bukaa yi waaye nag jooy moom mënta ñàkk jooy loolu nag mu ngi dugg ci buntu ku deele ci balaa ak yu ni mel léeg mbas am mu yóbbu bakkan léeg-léeg musiba am foñ ko foogewul mu yóbbu bakkan su boobaa jooy dagan na waaye nag yuuxu day araam al bukaw ala al mayiti bi dumoo dégg nga loolu Sëriñ Tubaa dem na sax ba wax ni ba tey ñu ngi ci buntu balaa qaala awalu maa katabal awalu maa katabal xalam fi lawx nee na xalam li mu njëkk bind ci lawxu fi lawhil mahfuz bi amrillahi ci ndigalul yàlla maanaam yàlla bi mu bindee lawx bind xalam mooy àlluwa ji sunu borom di denc ay yëfam ak i sekkereem jooju yàlla di bind ay bindeefam ak i sekkereem la mu njëkk njëkk bind ca lawhul mahfuz ma ne alqalam fi lawhil mahfuz bi amrillahi ana allahu laa ilaha illa ana wa muhammadun abdi wa rasuli wa xiirati min xuluqi man istaslama li qadaa'i wa sabara ala balaa'i wa shakara li nu'amaa'i katabtuhu siddiqan wa ab'asuhu ma'a siddiqin yowma alqiyaamati wa man lam yastaslim li qadaa'i wa lam yasbir ala balaa'i wa lam yashkur li nu'amaa'i ni'amaa'i fali yaxruj min tahti samaa'i wal yatub rabban siwaaya mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni lawxu day la ca xalam njëkk a bind mooy inna ana allahu laa ilaha illa ana man yàlla man dong may buur kenn du buur ku dul man wa muhammadun abdi muhammad sama jaam la wa rasuli sama ndaw la wa xiirati sama tànneef la min xalqi ci sama bindeef yi man istaslama li képp koo xam ne sukk na wàccee bëti óomam toroxlu ci li ma dogal wa sabar ala balaa i te muñ balaa bii ma dogal kon ndeke am na balaa azali balaa bu yàlla rëddoon démb ca booba kenn amagul sunu borom wax ne képp koo xam ne muñ nga ci balaa bu ma dogal wa shakara li naamaa i te nga gërëm xéewal yi ma la defal katabtuhu siddiqan danaa la bind fa man nga nekk siddiq wa abaasuhu maa siddiqin te yowmal xiyaam bu ma dekkalee siddiixu ni ca ngay bokk wa man lam yastaslim li qadaa'i képp koo xam ne nag nanguwul samab dogal walam yasbir ala balaa'i te muñul balaa yi may tege walam yashkur ni'amaa'i te gërëmul xéwal yi ma def fa fal yaxruj min tahti samaa'i nee na kooku na génn sama asamaan te it na dem wuti wal yatlub rabban siwaaya na dem wuti beneen buur budul man kon nanguwul dogalu yàlla mu ñoo balaa yi yàlla yi tege te it gërëmoo xéewal yàlla yi sunu boroom nee na génnal sama suufu asamaan da sàkku beneen buur bu dul man kon ab jaam day muñ balaa dem na ba wax ni qaala aliyun karama allahu wajhahu qaala alfaqihu rahimahu llahu alsabru ala albalaai wa zikrullahi indal musibati mimma wajaba alal insaan mu ni daal boroom xam-xam bu tedd ba dafa wax ni muñ ci balaa lu war la ci doomu aadama li annahu in zakara allahu taala fi zalika al waxt nee na saa boo santee yàlla tudd yàlla ci jamono bu yàlla wàccee balaa kaana ridaan bi qadaa illaahi loolu yaa ngi gërëm lay lay li yàlla dogal ci yow wa tarxiiman li seytaan yaa ngi toroxal seytaane képp ku balaa dal ci sa kaw nga delloowaat mbir mi ci yàlla kon fii nag war nañoo wax ne kon war nañoo delluwaat ci yàlla te ubbi jàkk yi ak jumaa yi ndax foofa lañ mën a delloowaat ci yàlla dëgg la naa am toog ci kër yi ñu ngi fiy jaamu yàlla waaye nag ma ndey yàlla ja nga xam ne néegub yàlla ba nga xam ni fa la sunu borom di wuyoo jaam bi jamono bu koy woo foofu war nañ koo tijjiwaat demaat delluwaat jàmm yàlla kon ñu ngi ñaan ci bi barakati shahru ramadan bala ñuy yàgg ci leetul xadar mi nga xam ne ci la yàlla dogale lu bari balañ ca yàgg nañu ubbi jàkk yi ubbi jumaa yi te bala bi yàlla na dem bi barakati shahru ramadan bi xormati leetul xadar yàlla na ko sunu borom dogal kon muñ a ngi noonu balaa ngi noonu xam naa ñu tëji buntu balaa rek ci waxi sayidna alin karamallahu wajhahu mu wax ni wa qaala aliyun karamallahu wajhahu alsabru ala salaasi aqsaamin nee na muñ daal ñett la alsabru ala taatillahi muñ ci topp yàlla alsabru an il maasiya muñ ci bàyyi mooy yàlla wa sabru ala al balaa i ak muñ ci biir balaa muñ ci bu la yàlla tegee balaa kon ñu indi ci ñaan rek yoo xam ne jamono bii ñu toll seetaane li muy fexe doomu aadama yi di ko fexe Serigne Touba indi na ci ay solution ndax moom wax na ne yan xaadu lii minhu ajru saa'ilin euh, yàlla defal na ma képp koo xam ne laaj nga ma sunu boroom may na ma tontu man lii jaade bi xal bi bil masaa'ili sunu borom def na ci samay xol ay masala yoo xam ne sax nit duma ko laaj kon moom lépp lu ñu laaj wax na sax ci masaalik ni sunu borom may na ma képp koo xam ne laaj na ma am naa sa tontu njëkk nga di ma laaj loolu mu ko doon wax ci buntu fala tuaadu man raaytum faahu yuxruju laa ilaha illa lahu is akramul ibadi indallahi aksaruhum taxwan bil yi nga xam ni foofu mu ngi wax sax ci buleen noonu kuy tudd yàlla ndax tudd yàlla mooy baat bi gën a dem na sax ba wax ni man maa wax li xat xultu zalika bila israari wala ubali bisawil inkaar yi foofu nag fa lay waxee ne képp ku ma laaj am naa sa tontu ci la ma wax ne baatub laa ilaha illallah moo gën ci lépp lu doomu aadama di wax kon moom lu jóg lu ne rek am na ci solution mu wax ni sunu boroom dafa wax ni mu balloo ba tey ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bu ñu tolloo ci jamonoy balaa wala nga gis lu lay tiital ba lu lay naqari mu wax ni mimma yustaamalu lilsalaamati min al aada aazana allah wa iyakum min charrihim almuwaadabatu ala ayatin ayati najaati saba sabahan wa masaan nee na bokk na ci li tax di mucc ci am noon ak pexem nañ sax ci di tudd aaya yi nga xam ni mooy ay musle ci alquran lu mel ni qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa mawlana wa ala llahi falyatawakkalil mu'minun ak euh, law anzalna hadha alquran ak ay yu demee boo demee ci xes da xis na labraar da nga ko ci fekk te boo demee ci téere yu bari itam yi nga xam ne dañuy digle ñaan da nga ko ci fekk loolu mooy al ayatul munjiya as saba wa kazalika man qaala sabaxan wa masaan xasbiya llahu alxasib sabiina saban wa sabiina marra fi sabati ayamin yabda'u bi yowmil xamiis fa innahu yaman min charri ahdaaihi wa xusaadihi cey mu ne képp koo xam ne am nga ku lay noonu képp koo xam ni am nga ku la bañ tàmbalil bésu alxemes dellu wa xasbiyallaahu alxasiib xasbiyallaahu alxasiib Sëriñ Tuubaa nee na def ko 77 fois balaa bés bee dellusi yàlla àtt la képp ko la añaane wala ko la bañ xasbiyallaahu na nga tàmbalee ko bisu alxames wa fi kitaabil fawaidi man qaraa haadihi al fi wajhi man yaxaafu charrahu min subuin aw zalimin laa yadurruhu sëriñ Tuubaa nee na baat bii may bëgg a wax képp ku ragal nit wala ku lay tooñ wala koo xam ne danga ragal muy suba maanaam ndeg ment yi njaay àll yi fàdde boo daje woon ak ñoom ci àll nga nee na nga wax baat bi yàlla musal la ban baat la nee na mooy xawluhu taala allahu rabbuna wa rabbukum lana amaluna wa lakum amalukum laa xujjata baynana wa baynakum nee na baat bi it loo ko foo ko wax ci kanam ku lay tooñ ku la nar a toroxal moo xam kuy fàdd la moo xam njaay àll la sunu borom attile sa diggante ak moom mu dem nga dem dégg wa anhu aydan nafaana lahu bihi yuqaalu fi wajhi zalimi te ci jamonoom la ñu toll am solo ngi nii nee na képp ku dajeeg nit wala nga dajeeg loo xamul ci xeeti mbindeefi yàlla yi waxal baat bi sunu borom àtte la ci yërmandeem dimbali la sange la mu ni yuxaalu fi wajhil aduw waxal boo dajeek sab noon wa zalimi wala nit kuy tooñ wala mu am doole waxal taazastu bi izzatil jabarut wa tawakkaltu ala alxayi allazi laa yamuut shaahat alwujuh wa anat al absaar wa tawakkaltu ala alwaahidi alqahaar wa yanfusu salaasa marratin nee na waxal loolu ëf bul tef li ëfal ñetti yoon nga raay ci sa kanam nee na lum mën a doon ci luy fàdde musiba ak fitna waxal baat boobu yàlla sañe la ma baamtuwaat ko taazastu bi izzati aljabarut wa tawakkaltu ala alxayi allazi laa yamuut shaahat alwujuh wa anat al absar wa tawakkaltu ala alwaahidi alqahaar nee na wa yanfasu salaasa marat nee na ku def loolu ci kanam ñooñu mu tudd yàlla musal la mu dellu waxati wax bu am solo waxa ngi nii boo xam ne képp koo xam ne chauffeur nga buy dawal te ragal lu lay dogale ci jinne wala rab ci tali bi wala sax nit koo xam ne nit la yow bëgg laa agressé wala ngay dox guddi di liggéey guddi nga bañ ko la agressé wala nga toog ak kilifa te muy ku bari doole tey duma sëriñ Tuubaa na waxal lii sunu borom musal la ci loram moom la wax ni man daxala ala man yaxaaf fa xaal fi wajhihi atfahtu xadabaka bi laa ilaha illa mu ni képp ko ragal mu am fitna wala muy nit ku am tàngoor nga taxaw ci kanamam bañ mu lor la wala mu duma la wala mu toroxal la nee na waxal wax bii rek ak ku mën a doon nag atfaxtu xadabaka bi laa ilaha illa allah amina min charrihi kooku ay wu mu am yow lugg nga ko wàcc na waqut git xawa ijuhu te ajo boo doon doxi dana faju kon defe naa eh, ñu ngi taxawloo di foofu mbokk yi ñuy déglu mbokk yi ñuy seetaan ci bunt balaa ak ñaan li ci sëñ Tuubaa digle ak njëriñ li mu am dem naa sax gis naa sax ci silkul jawaahiri bi ma tiim waxoon na sax ci balaa ne isa unzilatil balaa u surifat bi imaaratil masajidi nee na balaa boo wàccee ci adduna dara mënu koo fel mu jàll lu dul soorori jàkk ak jumaa ci bunt booba sax wax na ne wax na ci beneen wax ni ñaar rek mooy fel balaa mu jàll muy sarax ak soorori jàkk ak soorori juma kon ka jëloon moom sept milliards wala huit milliards defoon ko ci soorooru jumaay Tuubaa yokkaat yeneen juróom yeneen ñaar muy juróom-ñaar am ñu waxoon ne yàq la ak fi jamono toll kooku xam na moom yàlla dooleem ni mu toll ak jàkka yi ak jumaa yi li ñu représenté ci diine islaam balaa buy wàcc isa unziltil bala'u surifat bi imaaratil masajidi sooroori jàkk ak jumaa moom dong muy fël balaa mu jàll teggi dem ci meneen réew wala sunu borom yóbbu ko foo xam ne ila ma sha allah kon nañ ubbi jàkk yi mu azinuun yi nañ noddu ñii noddu nañ noddu imaam yi nañu waare matukaay yi kër docteur joxe du ñu yàlla du ñu yant bi digle lu baax rek lañ man te defe naa ne kuy digle lu baax sunu borom moo ci jiitu kuy digle lu baax Moustapha sallallahu alayhi wa sallam moo ci jiitu wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin mbokki jullit lii mbokk yi nuy seetaan mbokk yi nuy déglu lii lañ leen indiloon ci ñaanu mag ñi di ko defee nag fii ci suñu télévision bi ñu tuddee Africa 7 di ñaan suñu boroom defal ñu dégg ak topp waaye nañu bàyyiwaat xel ñaan yooyu cheikhul xadim joxe bi ci jiitu mooy xasida gi mu tudde bismillahi arrahmani arrahim anta arrahimu assamadu arrahmanu almuminu almuhayminu almanaanu ikfil bala wa jumlataloo bà i xam nga ikfil bala dugg na kon day dàq bala ak xasida gi mu tudde bismillahi arrahmani arrahim allahu xayun samadun wa baaqi subhanahu zu kanafin wa waaqi wa nahnu fi kanafihi lmanici min kulli charrin wa azan shanici mustamsikina bilgiyaasi ahmada xayra alanaami muntahan wa mubtada man qaalaha fi zamani lwabaa'i amanahu llahu min albalaa'i nee na xasida gii gii gii gii di ñeenti ba juróomi bayit yii nee na ku ko jàng yàlla musal la ci balaa kon loolu jar na jàng yooyu yëpp nag ak xasida gi mu tëjee jamono nga xam ne jamono nim mel ci njabarkat yi xërëmkat yi ak ñay defar ay produits toxiques di ko jox xeet wi ngir rey leen Sëriñ Tuubaa ñaan na ci muy bismillahi rahmaani rahim yaa rabbana najjina min alcheytaani wa jawratil jiraani wa sultaani wa kullu naafisin ala luquudi wa zalimin wa aabidin xasuudi wa kullu taariqin wa kullu taariqin wa turuqin zi talliili wa kullu taariqin wa zil wa kullu taariqin zi turuqin talliili wa kullu tilmisin wa zil balili ngeen baal ma ma baamtuwaat ko wa kullu taarixin zi turuxin tadlili wa kullu tilmisin wasil balili fa bi duwaayin yasiful balaaya wa bi rajaan ngi jur lu ataaya xasida googu fii jamono toll xasida gu jar di ñaan la ndax yàlla musal ñu ci jinne ak seytaane ak nit ko bon ak kuy njabar ak kuy fas ak kuy yeew mbokk yi mbokki télévision yi mbokki téléspectateurs yi ñuy seetaan ci suñu télévision bi di Africa 7 lii lañ leen indiloon ci ñaanu mag ñi wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabil alamin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulilahi rabil alamin yàlla na yàlla nangu sunu jaamu yàlla ñu ngi def ci weeru koor yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah